L'Égypte est tombée. L'Égypte est en larmes. Le Sénégal est champion Les larmes de Moustapha Nam, il n'a pas joué la moindre minute, mais il est submergé par l'émotion. Et, ça se comprend dans ces moments-là. Une équipe, une équipe, c'est pas seulement une personne. Ouais, Dramé, submergé par... assalamualaikum ma ah. gay man tay mom vraiment dama ah. mera ci sama mbokk gi ne ni len égyptien yi def donc vraiment dama ne won duma ci wax sa dama koy def ben post dougal ko ci chaîne youtube bi mais vraiment euh, fokh ma wax ci parce que égyptien yi gay ils sont méchants gay xolal li nga xamanteni ci bi rek def nañ ko ñi nga xamne moy guiné yow essar bu yow téne bu melni nan ko mëna joxé équipe nationale gay mu ci ah, entraînement téne bu melni donc vraiment c'est inaccessible te am nañ terrain yu baax yoo xam ne ni ñu mën leen jox euh, ñu ñu mais man vraiment lii dafa nekk lu may ñaawlu trop lu may ñaawlu trop en tant que bu toll ni Égypte warul euh, def genre affaire yi euh, te buñ koy def sax war nañu si seet ki nga xam ne si bi mooy Mohamed Salah dañu wax nag. lu bëri ñu naan supporter non c'est ça il s'agit pas de supporter il s'agit de la fédération égyptienne moo <clears throat> def lii booy def lii nag Salah tamit ah il devait parler sur ça parce que en tant que joueur bu toll ni yow euh, ngay football ñuy jox eh, mais y aura y aura des autres matchs euh, peut-être dinañ dinañ dajawaat et vraiment ils verront di leen dal Sénégal rek moo leen dalaat Guinée jaa ngeen jëf gars yi merci kontaan naa seen bu baax abonné leen jaa ngeen jëf wan